delloo dinañ ko mën a lay waaye suñ ko fa delloowul duñu ko mën a lay eh? waaw kañ <laughs> fa tabarakallahu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu sa njaboot gu tedd gi toog ci sa wet yépp góor ak jigéen mag ak ndaw fatabarakallahu duma len di faral dilim ndax damay wax ni dama nay ci njabootu Seydil Haaji Malik radiyallahu taala anhu ndax dañu wul te chat daf leena gawa jàpp motax suñu toge ak seen kilifa rek so nuyo kilifa ga mu yobale len ñom ñëpp sëriñ bi ñu ngi lay dalal ci sa kër di dalal sa njaboot gi nga àndal ci seen kër ndax kër Cheikh Seydil Hadji malik si ngeen jóge ñëw dugg si ci kër Seydil Hadji Malick si radiyallahu taala anhu ndax fii daggit la ci Tiwaawan yàlla di dogal ki nga xam ni moo doon seen njaboot nekkoon fi ak njaboot gi di Serigne Alioune radiallahu taala anhu lii bi mu koy sos bari pexe taxul woon daf ko sosoon ngeen jox ko ci ndigal ñaanal ko ci gunge ko ci mu ñeme ko su jotee ngeen dagg lépp lu ngeen amoon ci soxla ñëw wéttali ko wéttali njaboot ki bégal leen ba déwén nag jàmm fa tabarakallahu mu nekk ci loolu ci toolu xare la woon ba yàlla mi dara tëwul def la ko soob ci moom waaye mu mel ni dem na waaye demul ndax olof ñooy faral di léeb ni ku am doom rekk deewuloo yàlla ngi dogal mu bàyyi fi njaboot gu xam seen bopp te tey ka nekk ci seen kanam di maam Amadine ànd ko ki rakkam maam Xalifa ak Pap Sall waaye loolu yépp nag li muy neex ndaxit ñoom ay ndaw lañu te ndaw du muus lu ëppi atam suñu mënee continuer la nga xam ni moom la seen bàyyi doon liggéey fii ci gox bi danu am fa tabarakallahu way jur bu mucc ayib muy soxna Zeynabu mu takk ndigam bëggatul mbubb mu rafet bëggatul takkaay bu rafet bëggatul parfum bu neex takku rekk nekk ndongal daara nekk taalibe uuf njabootam teete leen ci lii nga xam ni seen baay yéena ko ci joxoon ndigal mu koy doxal ah fa tabaarakallaahu eh, résultat bi mi ngi commencé di feeñ te dañuy faral di wax ni soo dee dund dëgg goo yàkkamtiwul doo yàkkamti ndam la teel a feeñ te nekk ci dëgg rekk mooy li wóolu ndax sunu maam Serigne Babacar Sy di sa bàyyi di sa turandoo Serigne bi dafa nettali ni nee na atam ca ndar nee na Seydil Hadji dafa jóge ci jàkka ji ñëw dugg ci néeg bi mu koy defaral ay téereem ci kaw lal bi neena na Maodo tëdd ci kaw lal bi mais nee na Maodo ba muy tëdd jëlul njaganaay teg ci boppam neena na dafa ràbb ay baaraamam teg ko ci ginnaawam jël boppam teg ko ci mel ni ku jaaxaan nee na ni ko Babacar mu ni ko labbay mu ni ko Babacar mu ni ko labbay mu ni ko Babacar mu ni ko labbay ba muy ñetti yoon mu ni ko saxal ci dëgg ku ñëw fekk la ci ku dem bàyyi la ci mu mel ni dëgg googu nag xale yi tey seen baay ci la doon dund ñoom it ñu jël seeni tànk teg ko fi seen baay tegoon tànkam dama dégg léegi ci sëñ Habib ci waxtaanam te lu ko jiitu sunu kilifa sëñ Mansour Dabakh def ko indi ci wàllu muñ ma leen di wax benn baat bu ma mës dégg ci sunu maam Haji Abdul Aziz Sy Dabakh mu ni bis dafa toog ak sunu maam Serigne Hadi Touré nee na mu ne ko abdu mu ni ko labbayka mu ni ko yàllaa ngeeg magasin boo xam ni fu ngeen amati soxla dem leen ubbi tibb la ngeen bëgg maam Abdou Aziz nee ma ni ko ah, góor gi magasin boobu lan la mu ni ko xanaa mooy magasinu muñ mu mel ni muñ ku ko deful ci sa dund yaakaar naa la ngay wut di ko sàkku neewu ma doo ko jot waaye di nga ko yéex a jot xale yii nag ak seen ndey di soxna Zeynabu fii ñu toog di fi liggéey liggéey bii lees leen seen bàyyi bàyyiloon muñ leen ko laytaaye ànd kook seen collaborateurs yi su bés bu jotee mbokk yi ñu am yépp fa tabarakallahu ku nekk dagg sa soxla ñëw ngir xamni suñu fi ñëwee dinañ fi daje kilifa yu melni yéen taataan fi liñ fi taataan dundu ci leer giñ fi dundu demati ba déwén te damay faral di wax ni bokku na ci ñak fayda ñëw ci jotaay yu melni daje fa kilifa yu melni ñu fi génne xam-xam yin fi génne te so fi joggé xam xam-xam ba mënul am lu mu soppi ci sa jikko kon jaratul ñuy def tànt yi ndax su fekkente ni mënuñu soppi ci suñu jiko yi dara kon tànt yi folklore dong lañ koy daye te su boobaa nag euh, jaratu ko waa te dama dégg ci seen Cheikh Tidiane Sy Al mu ni nee na njàmbaar neena du gàddu jaas yi di xare waaw nee na njàmbaar du gàddu jaas yi xare nee na njàmbaar pire mooy nga nekk ci lëf ba xam ni lii nga nekk du noonu nga génn ca dem ca lay dëgg waaw kon fa tabaarakallaahu si sa njaboot a ngi nii ñu ànd ak ñoom di seeni kilifa ñu def nit kilifa ndax damay wax ni xale yi amul dara lu nuy damm bant fii ci seen kër baay te du dañu sol seen dàll ñëw ba ci man waxtaan ci ak man lu ma leen ci tëralal mu doy leen te toujours ma wax len ni su dul woon soxna Zeyna ma jur len ci Serigne Alioune ndax Serigne Alioune ñoo bokk ndey waaw su ci soxna bu Zeyna bu raxee ah muy eh, li olof naan cere cere ju neex ci la diw dàqe kon fa tabarakallahu si su ngeen ñëwé nekk suñu kilifa dinañ len sédène loolu ci ñoom te toujours conseil bi ma di jox mooy conseil ba ma sunu maam alxaaji aman njegéen te Cees joxoon man ak seen nijaay maam du Cissé rahmatullahi alayhi ba nuy waajal gàmm sunu way jur Cees te dem seeti ko di ci waxtaan ak moom moom góor gi alxaaji aman njegéen ñaari baat yu gàtt lañu wax dañ ko wax ba noppi mu ni baax na doom waaye bu leen ko yàkkamti te buñ leen ci yàkkamti foofu la yem ak ñun bu leen ko yàkkamti te buñ leen ci yàkkamti ñoom tamit loolu laa leen di wax bu leen ko yàkkamti te buñ leen ci yàkkamti waaw ndax eh, bëgg ndam lu feeñ yenn saa yi mën nay faral di feeñal ak mbaadoolo ndam moom su la su la wóoree ni incha allah li ci kanam rawu li bët mi ngi ñëw nekkal ci li nga nekk rek kon sëriñ bi ñi ngi jéggalu ci kàddu yi ni yëkkati dafa mënul woon a ñàkk xale yi ni ma kat su sunu maam ñëwee bëgg nañ bala muy jël kàddu nga ubbil ko ndax tamit xam nañ cofeel ak fonkeel gi nu am ci yow ngir yàlla ak wayjur ya ngir yàlla ak sa turandoo ngir yàlla ak taxawaay bi nga am ci kër Seydil Hadji Malick te tey jii ñépp xam ni luy dundal daara Seydil Hadji Malick rek moo la yitteel kon dañ lay ñaanal yàlla yaag sa mag yu tedd ya sëñ Babacar si Mansour Al Khalifa Seydil Hadji Malick si Dabakh yàlla na yàlla fenq seen fan yàlla na yàlla fenq seen fan yàlla sàmm leen sàmmal leen njaboot yi yàlla suturaal leen ndax dégg naa ci sa turandoo di sa bàyyi sëñ Babacar si loo ko masaan a wax mu ni doom ñaan leen sutura ndax nee sutura moo gën a yaatu waaw nee na moo gën a yaatu kon sutura boobu mu daan ñaan guddeeg bëccëg ba Malick yan na yàlla defal leen ko defal ko sa doom yu baax yii di sëriñ Habib ibn sëñ Babacar si Mansour ak sëriñ Habib ibnu sëñ Mansour borom daara ji moom yàlla dafa dogal moom sëñ Habib ibnu sëñ Mansour borom daara ji am benn relation bu particulière bu dox digganteem ak xale yi te ñun loolu xam nañ ci dara ndax xale yi toujours dañu ñëw dinu rendre compte fi li ñu seq ak moom fa tabarakallahu mi ngi leen di taxawu ci biir mi ngi leen di taxawu ci biti ren jii événement bi nga xam ni maam Amadine ma ngi ko doon def ca Paris gannaaw yàlla moo sol dàllam dem wéttali ko taxawul ko jàppale ko ci ba yàlla def ci ndam bi mu ci def ren ah su ko defalee nag defal boppam la ko defal ndax ku nekk xam na sëñ Mansour ni mu demee woon nag soxna sëfeetu ah ba jël doom tudde ko kon fa tabaarakallaahu wëllëre boobu mu ko doon wël doxal digganteem ak Alioune Sall tey Alioune nekkatu fi njaboot gaa ngi fii mu ngi continuer di ko doxan dox ak ñoom kon suñu ñëwee ci seen kanam dinañ leen ko seedeel si di ñaan yàlla ci kattanam ak mbaaxam yàlla bu mu nekk suñu mujj daje yàlla na yàlla may ñu ñu teew ak yu bare bëri bëri ah mbooloo mi yàlla na yàlla sàmm leen te teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ndax tamit damay faral di dégg ci seen maam Cheikh Ahmed si nee na mu ni eh, looy doye junni nit gëm la ndax nee na su la ñaari nit gëmee sax soo deful naan alko ànd ak ñoom waaye ña fekk nag ña nga leen di gëm nga teg leen ci yoon boo xam ni ëllëg foo dajeek sa maam ak say baay doo rus te yéen gi ci yoon ni fa tabaarakallaahu yal na yàlla taxaw leen ci soxna Zeynab ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara ah di ñaan yàlla ci baaxam ak kàttanam li fi sëñ Habib baax góor gi sëriñ Alaaji yéene bi mu amoon ci digganteem ak soxna Zeynab ba jël ko duppé la ko toujours mo wax xale yi ni keroog bi ko sëriñ Alaaji di indi di ko jox soxna Zeynabu bobu da fay a ferum so ma ngi ko soxna mu kéro ful na ci ni sëriñ Alaaji ya nek xale bu feragul so nga jël ko diko jébal jébbal nuko nu di def waye bobu ba légui génnul ci loxoy bàjjanam fa kon yalna yàlla gën leena sam sëriñ bi ñi ngi fédali sunu kóllëre di fédali sunu talibé di ñaan nga ñaanal ñu yàlla te ñaanal nag nit ñi ndax li may faral di dégg sëñ Habib bu sëñ Mansour di leen ko wax su ngeen dajee ci lu jotaay yu mel nii ni soxla yi bëri na tak-tak yi bëri na yitte yi bëri na mais am nañ yaakaar ak yàqit ni su ngeen ñaanee yàlla takk defar yëpp macha allah kon ñi ngi ñaan yàlla ci seen barke yàlla na aajo yëpp faju yàlla na sutura si yokk yàlla na xéewal yi yokk yàlla na barke bi yokk yàlla may ñu ñu koy def ati ati at ba Aliyun fa mu tëdd xam na ni bég na waaw ndax seen maam Seydi Hadji Malick mooy moo daan faral di wax ni nee na su ngeen xamoon li dox suñu digganteeg waa bërzaq nee na su ngeen leen di tudd da ngeen di wàcce seen baat ndax nee na leen doon misaal rideau voile sax doxul suñu digganteeg ñoom ñun ñoo leen dul gis waaye ñoom ñu ñuy gis kon fa tabarakallahu loolu ñu ñaan yàlla yàlla na taxawaay bi yàgg ah di encouragé xale yi maam Amadine ak i rakkam wax dëgg yàlla topp nañ ci ginnaawam déggal nañ ko moom i tamit mi ngi déglu ndeyam di nu déglu ñun ay nijaayam di déglu ay baayam di déglu ay maamam ah su ngeen jógul ci loolu incha allah yàlla ndam rek la leen di defal a ah, loolu rek la ñu amoon di ko ubbile suñu kilifa di ko jéggalu encore ci kàddu yi dafa mënul woon a ñàkk rek ñu yëkkati ko di nuyu ñëpp di balu ak ñëpp di ziar ñëpp السلام عليكم ورحمة الله وبركاته